waaw j'espère que yaa ngi si jàmm bu baax a baax tey ñu la doon laaj rek noo dundee mémorial euh, Tidiane Aidara bi mm, mm, mm, waaw bon avant tout d'abord bon ñu ngi sant bu baax a baax bon di leen remercier ci taxawaay bi ngeen taxaw ci bés bu mel nii bon ki ñu koy defal nii bon dafa nekk ki nga xam ne ko aussi jar na ko parce que am na amul li nga xam ne daju ko ci biir euh, quartier bi quoi da ji boo xoolee ñu bëri ci ay tànkam lañ jaar en commençant par yéen bon yéen ñëpp ci ay tànkam ngeen ci ay loxom ngeen jaar bon ba yàlla def ko ci tey tey ji ku nekk mu ngi évoluer ci beneen euh, niveau niveau bi nga xam ne bu ku leen ci gis aussi da leen ci naw quoi bon fa mu nekk aussi ñu ngi koy ñaanal yàlla euh, yàlla xaare ko àjjana oyofal suuf si ci kawam seddal ay yaxam sàmm njabootam bon yàlla na rëccu sax lu mu def ci kaw suuf quoi bon aussi euh, su ma ñëwaatee aussi tamit ci li mu fi jot def bon vraiment rafetlu ko rek quoi rafetlu ko bon moo tax bés mu ñu ci bañ a ñàkk teew def ci li ñu mën bon indi suñuy xalaat ak suñuy xam-xam ak suñuy euh, yéene quoi lépp li ñu ci mën rek mooy taxawaay physiquement financièrement taxaw ci yooyu parce que jar na ko aussi quoi bon leen ciy gërëm leen di sant leen di remercier aussi ci taxawaay bi ngeen taxaw ba organiser bi mel nii leen ni wal ni ñu am couleur ngeen quoi parce que mën na fi jógee tey ngeen fàtte ko mais di boobu ba léegi yéen a ngi koy fàttaliku ba aussi xool ba ci mel ni comme ñoom booy Moussa Ndiaye tey ji bi Moussa Ndiaye tey ji bu demee ba am li nga xam te am na ko yàlla ak ay dara la quoi parce que ci tànkam ci ay loxoom la jaar ba muy tuut tànk ba nu mu toll nii le bon di sante yalla rek quoi di sante yalla diko ñaanal bu baax fu mu nekk yalla nako yalla yàlla xaaree àjjana foofu quoi xaaree ko àjjana fii daw si. waaw ah, beneen question ma lay wax ni par exemple euh, yow lan ban appel nga doon def ci population Cheikh Wade bi nga xamante bi mhm, mhm. ñëpp xamante bi ay dara amul lu fi deful mhm, tey so xolé gis nañ ni nit ñi genn nañ mais war nañ gëna mëna genn lu ëpp li tey so doon lancer ban appel ban appel ngay lancer wa appel may lancé bon bon seulement peut-être problème euh, information rek la quoi information le peut-être bu jàllul bon motax gaay gars yi ñëwuñu bon euh, Aidara moom franchement kune ne rek même ne waxuma sax géejuwaay waxuma sax quartier Cheikh Wade rek Aidara euh, euh, daanaka zone bi yëpp géejuwaay nu mu toll muy jaxaay jamono yaakaar ay yëpp ku ci nekk tey ji war nga mën a teew peut-être problème mm, information la bon ñu ngi ñaan déwén ñu fekk ko ak jàmm te bu ñu koy def mu gën a yaatu nii bon ba nga xam ne ku ci mëntaay rek day ñëw jàpp ci parce que ki ñu koy defal jar na ko ko appel bu may lancé bi mooy déwén incha allahu rabi bu ñu fi fekkee jàmm salaam ñu gën ko yaatal bon ba quartier yëpp ASC yëpp mun cee bokk ñu def li nga xam ne lu au moins benn mémorial bi nga xam ne bi bon ñi ñëpp daañ ci ànd defandoo ko mu nekk euh, mémorial bu réussite comme lii commencement rek bon ci ay commencement la nekk ba

saa même maa moom dañuy waxtaan ba caag rek day tok ba caag rek laaj ma est-ce que gëj nga gis soxna Aïdara wala xalé yi yaa leen di gis ak yooyu wallaahi dañuy tok téléphone sax mu woo ma ma xam ni kii bon euh, mu ngi baye xel bu baax bon euh, euh, Aïdara mi nga xam ne am lu mu jot def ci mom ba fu mu dem ci monde bi fuñ ko laajee foog mu ci Tidiane Aïdara daal di koy ñaan donc kooku mu ngi baye xel ci mom ci baax té inshallah rabbi ñan ñaan yalla rek yalla baax na quoi yalla yàlla baax na waaw yalla baax na daal waaw en tout cas suñu ambition bon yaakaar naa waa Guédiawaye yëpp et puis dañ ciy rafetlu tamit ñëpp lañ ko ko yéenee di ko ci jàppale muy mag muy ndaw xam nga fu ma romb ni ñaa ngi koy ñaanal bon yëpp mel ni ni Moussa Moussa du sama Moussa Moussa ñëpp la Moussa ñëpp la quoi Moussa ñëpp la di ñaan yàlla ñëpp nag ku ci nekk na nga ko ñaanal bon xam ne su réussir suñu réussir la ñu ñëpp quartier bi réussir Tidiane dara aussi parce que au mois ñu xam ne ni Aidara kat kii ay Aidara la woon euh, élément Aidara la bon mu ngi daal waaw noonu daal ñu ngi rafetlu affaire boobu daal franchement waaw ñu ngi ciy rafetlu bon leen ciy gërëm leen di sant bu baax a baax a baax leen di wax Moussa mi ngi noonu Moussa ñëpp la du sama doom man kese seen doom la seen rakk la seen jarbaat la. Ndiaga ñu ngi lay nuyu kii mooy Ndiaga Ba moom la daanaka ay Aïdara bi muy génn àdduna moom la mujjee bàyyi ak école football bi depuis lors vraiment mi ngi ciy def travail bu mucc ayib ñëpp gis nañ ni ñu ciy sonnee xaaroo ci ngërëm xaaroo ci ndimbal xaaroo ci dara da koy def parce que borom école football bi dafa am kàddu yu mu bàyyi woon ci yow ñi ñaan yàlla fi mu nekk yéen a gënal fi mu jugee tey ñu la doon laaj yow ban sentiment nga am tey ci mémorial bi nga xam ne ñu ngi ko organisé depuis ce matin ba léegi. waaw gars yi maa leen nuyu euh, di leen jox seen wàccuwaay bon lii moom man sama xool da cee sedd ba nga xam ni boo ma laajee dama ciy dama ciy gën a sawar a wax ndax àdduna nii rek la ndax euh, am na am na am na def defuñu ko. mais yàlla dafa def euh, ay xale yoo xam ne dañoo bett def loo xam ne kenn xalaatu ko woon te ay dara comme li nga wax tey rek euh, biram da nga wax wax bu am am importance moom mooy euh, ay dara benn nen la boo xam ne bon il faut nga may nees ko ñëpp mu cee mën mën cee laal te loolu moo fi nekk te ñi ngay xool ñii di fubal ñii ñëpp amul ku jaarul ci loxo ay dara amul ku amul ku fi jaarul kon instant boobu noonu instant bii nii moom dañuy sant gars yi di leen gërëm di ñaan yàlla yal na leen yàlla defar seen seen fen seen seen bëgg-bëgg di ñaan yàlla ay fi mu jógee yàlla ko fi mu nekk yàlla ko gën fi mu fi mu mu jógee. Mm-hmm. bon léegi ñu lay wax par exemple euh, yow en tant que ancien joueur tey nga ñëw di encadrer école football bi nga xamante ne bi Aidara mi ngi ko bàyyi ci yow yow par exemple tey d'après tey sa matin ni ñu organiser tournoi yi ñu joué nga finalu euh, ñu gagné la ngoon gi ñu ñëwaat di def match de gala boo xam ne comme ni nga ko waxee ñi fi nekk ñëpp ay ancien joueur lañ yow par exemple ban appel ngay def ci ñi nga xamante ne bi tey ñu ngi leen fi doon séentu te gisuñ leen ci waaw waaw Birame Birame fekk instant yi nekk yi match de gala bi sax boo koy wax non euh, du ma sa gala euh, groupe Aydara la groupe Aydara la centre la sa centre la centre Njaga centre Koso centre euh, Kaabari non non ñu ñëpp Aydara la ay dara moo tax nga mel nga mel ginnaaw yàlla yonte bi koso noonu njagal noonu kaaw bari noonu kon yaakaar naa ni euh, lépp lu ñuy lépp lu ñuy def nii rek dañ ci sant ay dara di ko di ko ci di ko ci gërëm ku ñëwul tamit dañuy xam ne ñàkk jot la rek birom ñu ñëpp sañoon teew fii am na ñoo xam yëguñu ko ñu ngi ñu ngi ñu ngi kaas te buñ sañoon dañ koy yëg tey sant bi teew nañu ah, man li may wax chaque jour rek man dama bëgg chaque jour rek ñu ñu nekk ay nit ñoo xam ne euh, nañ nañ nañ yëg ay nañ yëg daal li ay dara di ñu defaloon nañ ci nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax Birame lolou da la amoon luma ci wax. bon légui la dernière question ma lay wax moy par exemple daw mo doon première édition bi. Mhm. nit ñi dañ doon wax naan appel bi jallul jallul mhm. ren nek deuxième édition bi ñëpp gis nañ ni appel bi jall na parce que depuis longtemps ñing ci nek diko ko diko di diko waaj mhm. mais tay so xolé liñ doon xaar. mo doon na gëna ëpp ñi génn tay légui nak ma la doon laaj yow ban appel ngay def population Cheikh wad plus particulièrement ci ASC yi nga xamanteni bi yëpp ay dara drainé na fi ay jours. ok merci légui lolou mom luma ci wax mom moy Euh, man daal damay ñaan bu déwee nekk jàmm biram euh, ñu def ko ñu def ko mémorial tamit bu ëpp ëpp maanaam bu ëpp bii doole maanaam boo gisee maanaam bu ëpp doole moom mooy ñu dañ il faut ñu wooyoo ancien joueurs yi grand yi ñoom ñoom ñoom Issa ñi xam ñoo leen footballoon ñoom il faut ñu tëggal leen match ñoom ñu joué ñun bu ñu joué ba ñoom ñu joué mu doon loo xam ne empereur bi dina dina dina ëpp dina ëpp ëpp fii fii fii doole. boo gisee tamit ma ma ma ma ma tëb li nga wax dam foofu euh, dañ ci doon waxtaan léegi moo tax ñu ne xel lu doy xel du doy dañ ciy gars yi di wax di xeer di indi non yëgu ma ko yëguñu ko ay dara bu ñu koy rek amatul xaar ay dara boo xasee ba yëg rek amatul xaar loo jàppoon na nga ko war a bàyyi ñëw son ibu noonu keneen ak keneen noonu kon yaakaar naa ni ñun ay dara bu ñuy toog di xaar te dara rek non kon kon kon suñu la instant lii nii bu ko biral xëyoon toog di laata ko message wala mu laata ko ci wal fajar wala beneen télé ñëpp ko yëg non loo jàppoon na a barke alxuraan sama loxo nag la wàccee sama loxo man maa ko téye nii nii nii nii maa ko dugal oto maa ko yóbbu hôpital man maa ñu ñoo jënd garab yi ñoo toog ba bu muy wàcc di ba yaram bi di sedd comme glace man maa ko téye nii billaahi wallaahi taala hôpital bu muy gaañu ba may nax jabar ji ne ko demal ñu ngi koy indi yàlla xam na la loolu ndeysaan sama ko la fees daal am na yeneen détails yoo xam ne sax non mënuñu ko wax ñu ko wax mais daal yàlla yàlla na yàlla nañu ko yàlla fayal te yàlla na ko fii mu fii fi mu nekk yàlla nu ko gënal fi mu jógee yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla na ko gënal fii mu jógee biram loolu daal la amul lu may wax di ñaan yàlla yéen moom aw ma seen fay biram yàlla ma tim billaahi wallahi taala cër bi ngeen ma jox rek non man mënu man man aw ma mënu man samay wax sax damay sonn muy yow muy kaw bari muy koso muy keneen na keneen foo leen fekk grand bi grand bi grand bi ndeysaan tey jiwu ma leen loolu mais yéen daal yàlla na yàlla dafa seen njaaw li ngay ñaaw seen njott rek waaw waaw mmh. ah, xanaa di la présenter Bertrand vraiment mu nekkoon koo xamante ni bii aussi ñëpp xam nañ ni il a cheminé avec euh, feu Tidiane Aïdara gis nañ ñoom ñaar ànd nañ ci ay école football petite catégorie ànd nañ ci cadet ASC jamono de comme ànd nañ ci senior ASC jamono 2. xam nañ ne vétéran tey bu demee ba bëgg métier encadreur mën nañ ay Aidara moo ko def si moom tey ñu la doon laaj tey journée bii ñu jël jagleel ko Aidara yow lan nga ko dundee. bon mënuñu lu dul def te dañ ci am benn bi mbégte la ak mbégte ak tristesse quoi mbégte ak ak tristesse ñaar yëpp day ànd quoi ndax nga nekk ak nit après mu jóge fi jóge bu gaaw boobu noonu bon loolu tamit daf daf ñu man personnellement mu ngi may jàpp ba léegi. mais tamit mbégte la woon pour liggéey ak moom daanaka ni nga wax loolu la bu ma demee ba dugg ci loolu affaire encadreur moom moo tax yor na ma fubal encadré na ma fubal ba pare encadré ma waat kon encadreur kon loolu yombul quoi xëy na ñi ko am bëriwuñu mais man am naa ñaari côté yooyu ci moom ànd nañ lu yàgg quoi wax dëgg yàlla lu bëri tamit xam naa ko bon nit la woon bu nga xamante ni amul morom daal amul morom nit bu yaatu la woon ba pare suufeel boppam en plus en dehors du football sax dañ nekkoon ay ay xarit mun naa wax dañ doon fréquenter tout le temps ñoo doon nekk bon ba bi ma arrêté sax tout le temps da doon daf ma doon wax naa dellu si waat ci petite catégorie bi bon ndax xëy na tamit am na lu mu gisoon bon vraiment daal bu ñuy wax ci course daal suñu xol day fees wax dëgg yàlla vraiment suñu xol day fees bon li mu fi liggéey moom du du du deñ waaw waaw fii ba ay génération du deñ waaw ndax terrain bi boo xoolee daanaka li fi nekk li ñëwul sax moo ëpp li ñëwul moo ëpp vraiment daal ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk suuf woyof si koom bu baax yàlla teg njaboot euh, teg loxo ci njaboot ji mu fi bàyyi vraiment daal euh, Aidara daal mu mënuñu bu ñuy wax si moom suñu xol day fees wax dëgg yàlla. waaw ah, comme li nga wax rek Bertrand ñi ñëwul ñoo ëpp ñu ñëw. waaw ah. tey soo xoolee appel bi kenn du ne jàll la appel bi hmm. jàll na trop. depuis ce matin. nous mhm. football fait animation demi finale finale nous avons anciens et les vétérans. Mhm. L'ensemble des jours, nous avons fait un encadré yow ban appel ngay def ci population bi pour première édition bi jàll na bi mooy deuxième pour ñu préparer deux troisième édition bi di ñëw incha allah yàlla bu kenn manqué ban appel ngay def ci boobu incha allah. bon li ma ciy wax rek mooy troisième édition bi buñ koy def ñi gën ko yaatal ñi gën ko yaatal xam ne Aidara du quartier bi kese moo ko moom jamono kese moomuñu ko am na fu mu bokkoon famem d'abord famille bi nga xamante ni famille deretam ak quartier bi ak beneen famille tamit muy côté football bi muy famille encadreur yi. Euh, mus naa tasanteeg ñenn si ñoom ñu ne ma bu ngeen koy def euh, nañ ko yëg ñoom tamit am nañu wàll ci ci coach quoi bëgg naa troisième édition bi bu ñu koy def ñi yaatal ko bu baax teg benn cellule benn comité mu doon lu dëgër lu nga xamante ni dañ koy préparer duñ ko préparer ci une semaine wala deux semaine mais dañuy toog ay mois réfléchir ci ñu ñu ñu def ko mémorial bu bu bu rëy bu rëy fa même teew daanaka loolu bu fekkee dañ koy def sax yaakaar naa du xaj fii ci école bi dañ koy yóbbu feneen waaw bon loolu daal maa ngi lancé appel di beneen appel tamit bi gën a am solo mooy école football bi actuellement nii Ndiaga moom moo fi nekk. di lancé surtout ñi nga xamante ni jot nañ jaar ci moom encadré na leen ñu ñu ñu ñu jàpp ci bu baax waaw bu kenn xeeb dara nag bu kenn xeeb dara. ku nekk li nga ci mën nga def ko ci bu fekkee sa poos wala ay conseil nga def ko taxawu école football bu baax ndax actuellement nii bon xëy na yaakaar naa ne école football bi manqué na ay moyens ay matériel ak yu demee noonu nañ ci nañ nañ nañ nañ nañ appuyer ci école football bi bu baax tamit fexe tamit euh, coach bi tamit ñu fayal ko ay formation encadré ko ci loolu mu def formation ndax tamit xale tamit boo koy yor foog nga am waaw foog nga foog nga am kayit foog nga foog nga formé wu d'abord voilà tamit ñu jàppal ñu jàppale ko ci loolu quoi. nuyu suñu grand. Mhm. moom mooy euh, capitaine nu vétéran jamono 2 mu nekk grand boo xamante ni bii vraiment mu ngi fédéré rôle bu important ci ci koñ bi quoi vraiment. grand la bu ëmb ay rakam ëmb ay moromam kat la dal vraiment depuis dal biñ la waxé mémorial bi gis nañ ni taayoo ci fexé nga bu regrouper sa équipe ñom ñëpp ñu ñëw fi pour assister fête bi vraiment depuis ci suba ba légui ñoo fi yendu ñëwaat ngoon gi defaat match de gala entre anciens joueurs et vous les dirigeants ñu la doon lacc euh, yow nan nga dundé mémorial bi tay quoi. salaamaaleykum wa rahmatullah ma ngi leen sant di leen gërëm tout d'abord damay saluer initiative ak ñi nga xamante ñom ñoko ñom ko ñoom ubbi muy yeen

Euh, initiative bi ba nga xëyee suba c'est vrai wàcce nañ kaamil mais nañ ko gën a dolli wàcce kaamil bi marché gala bi njaboot gi mu fi bàyyi ñu toppatoo ko jàppale leen comme yéen ñi nga xamante ni yéen euh, ni mu leen encadré ni leen ni leen ni leen jàppatee euh, vraiment affaire la bu rafet ñu koy ñaanal yàlla lépp loo xamante ni def na ko lu baax mu bën ko réer fa mu tëdd. di ko ñaanal di ñaanal aussi yéen tamit initiative yi ngeen ngeen yokk ko ànd bis bii di ñëw incha allah li ñu def ren ngeen mën lu ko ëpp ñu defal ko lépp loolu defal ko njabootam quoi. Mhm. léegi ñu ne loolu laaj euh, par exemple euh, appel bi nga xamante ne bii nit ñi ñu ngi ko doon def ci suba ba léegi. Mhm. am na ñuy faral di wax naan euh, information bi jàllul. Mhm. soo xoolee depuis trois semaines derrière. information yi jàll na. lancé nañ invitation yi def nañ lépp. mais soo xoolee li wuyu si. li moo loolu. waaw li nga wax dama koy dëggal parce que ku mel ne tey suba Modou Niass euh, moom ak Aïdara ñu fubalandoo euh, def bi a laajee kenn ngeen fubal dama ne ko non tey mémorial grand bi la mun a grand mën na ko Aïdara mun a ah pourtant loolu yóbbu ko. loolu leen ko gën a yaatal mu ba cité ci exemple ne waa cosaan dañ koy def ba jël ay anciens joueurs ay ñoom Omar bu ndaw ñu ñëpp boole leen kon euh, ñëpp nag mënuñoo ban a yëg yëpp vulgarisation bi gaa des na mais ngeen gën a yokk seen loxo rek ba ñëpp yëg ko Euh, olof Ndiaye day wax ne euh, euh, nu mu tëddi diw yàqul cere quoi cere diw yàqu ko ku ko mën a yëg rek mu yëg ko lépp lu ci waay mën muy ñaan mu def ko ci muy dooleem mu def ko ci muy xalaatam aussi mu def ko ci yàqul dara ngeen gën a vulgariser rek si quitte à ce que sax ngeen passé ko ci benn chaîne d' information moo xam RFM moo xam beneen télé ñëpp yëg ko. parce que Aïdara ñëpp ko xam ah école de football yi mi doon seqal ñëpp ko xam ñoo amee Tidiane Aïdara dinañ ko xam gën gën ko yokk rek waaw gën a yokk information ba ñëpp yëg ko rek quoi. effectivement ñi ñëw nag euh, ñi des ñoo ëpp téeméeri junni yoon euh, damay wax ne ñaa bis bi rek du doy bis bi yi ñëw sax dañ ko war a def samedi def ko dimanche ametin nañ mën a xëy samedi bi wàccee kaamil bi toppatoo xool li ñuy toppatoo njaboot gi dimanche bi ñu invité nit ñi le matin ak après bi yëpp ñu gën ko te loolu yëpp information bu day moom moo ko indi quoi waaw léegi soo xoolee bi mooy deuxième édition def nañ l'année dernière la première édition mhm. bi nekk deuxième édition bi mhm. euh, bëgg nañ ñaan yàlla septembre prochain mhm. nekkaat troisième édition bi léegi ñu la doon laaj yow nan nga xalaat lañ ko war a gën a préparer pour pour affaire bi daal jëm tànki kanam comme deuxième édition bi ni mu dàqee première édition bi bëgg nañ tamit troisième édition bi ñëw dàq deuxième édition d' abord ça commence ça commence par la vulgarisation de l' information d' abord nañ ko gën a informer nañ ko jàllale ni ni ñu yëgee AG jamono mm. na bokk sax ci calendrier wu dafa war bokk ci calendrier wu jamono ni ñu koy defee AG ni ñu naan AG am na entraînement cadet commencé na entraînement senior commencé na dépôt licence am na dëpp vétéran euh, nu mu tëddi démission yi am na nañ ko boole ci calendrier boobu ñu boole ko ci AG bii di ñëw affaire bi bokk ci biir calendrier bi ñëpp mën ko yëkkandoo ngeen jël une date à l'avance nag ñëpp xam ko ne telle date ça tombe sur un week un samedi un dimanche jour bi mooy mémorial Aïdara yéen a wat yéem ci nag bii pas Aïdara ni aussi xëy na jaaroon nañ fi amoon na beneen Tall dëkkoon parcelle je pense moom du ñaal tudd ngeen yéen wala ci dafay baax fexe daal ba mu bokk ci calendrier bu jamono fexe ko incha allah ñëpp ko waaw di sant nag di gërëm affaire bu affaire bu rafet la fay mu tëdd vraiment mi gërëm di sant ku mel ne yéen ay ñoom jagaba ah yéen ñi nga vraiment affaire bu rafet rafet rafet ngeen def ñu koy vraiment rafetlu di leen ñaanal yàlla yàlla may leen dool leen kàttan bi nga xamante ni bii vraiment il fait les les jour jours de de l'ASC jamono de surtout les beaux jours de Guédiawaay laay wax Moussa Ndiaye du du Moussa jamono rek Moussa Ndiaye yu bi yëpp la mu nekk tey mën nañ ne moom lañ ne mooy représenté tey joueurs yi nga xamante ne bii ay dara formé na leen à part euh, Bouna Koundoul mi ne woon international A tey ñun Moussa Ndiaye lañ am moom la ñuy sagoo tey ñu ko doon laaj ci Moussa Ndiaye nan nga dundee tey mémorialu Tidiane Aidara bi avant maa ngi nuyu ñëpp quoi di nuyu ñi fi nekk yëpp xam nga samay per ñoo fi nekk ak samay ñoo xam ne ñu ñoo passé ndoo fii avant xam nga gars yi yëpp maa leen bëggee quoi di leen nuyu ñoom ñëpp xam nga non lii moom saa mën naa ni mësuma ko fekkee quoi parce que dama doon fekk ma dugg académie affaire yooyu tey ma am occasion fekk ma fi quoi moo tax ma ne tey noo def ma ñëw parce que parce que fii ñu taxaw nii fi leen débuté quoi temps booy depuis xale fi la nii terrain bi ñu taxaw nii fa lañ commencé Aïdara yàlla na ko yaara xaar àjjana xam nga ñuy entraîné depuis xale ba ni ñu màggee ba avant maa dem aspire noonu si moom laa defee lépp ñun ñëpp moom lañ defee sama morom nekk fii yëpp mooy loolu moo tax ak fu ma mënti dem fu ma mënti yegg sama xol mu ngi fi ak sama xel quoi yàlla def bii paa ma ñëw xam nga fekkee ko ñëw ak gars yëpp xam nga ñu kiwéndook ensemble parce que lii moom moom moom rek lañ ko mën a defal loo xam ne ñépp dañ ciy gis suñu bopp quoi famille am xam ne ñii xam nga fàttewuñu démb affaire yooyu te duñu duñ mës a fàtte démb quoi ak fu ñu mënta dem fu ñu mënta yegg rek suñu xel day nekk fii te duñ ko mës a fàtte quoi di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla xaare ko àjjana xam nga di ko ñaanal mooy loolu quoi. bon ñu lay wax Moussa par exemple dégg nañ ni yow dund nga ak ay dara lu neex. te yal na ko yàlla yërëm vraiment. te ñuy dégg ci say wax da ngay wax naan moom bokk na ci ñu la forger. vraiment ñu bëggoon nga wax ñu tuuti anecdote rek li nga xamante ne bii dund nga koog ndem si yàlla si. si mun naa ne sama papa la sama papa loolu. loolu laa mun a parce que dafa dépassé woon entraîneur. dañoo entraîné mais am nga entraîneur dañoo entraîné ñu dem mais day entraîné pare su demee ñëwaat suñuy kër toog suñu parents affaire yooyu xam nga même nekkul football bi kase même cadre jàng bi dañ doon forcé de trop parce que maa ngi fàttaliku benn bis quoi ba ma benn bis dew moo jàng ni ñëw.

ama mu yedd ma teg ma si yoon affaire loolu man instant bi su ma demee ba ñëpp xam ma Moussa Ndiaye yàlla ak moom moo tax quoi mun naa ne moom moo formé lépp quoi gars yi dañoo ñëw rek xam nga eggal yi mais lépp moo moo tax moo ma def ko muy di ko ñaanal quoi. léegi Moussa ñu lay wax par exemple euh, li nga xamante ne bii témoigné nga ci Aïdara koo xam ne ku fonkoon sport étude la. Mhm. léegi yow par exemple euh, école football bi mu fi bàyyi. xale yi nga xamante ne bii ñoom ñëpp léegi ngalax lañ tudd. surnom bi ngalax ngalax ngalax xale yooyu yow yan conseil nga leen di jox. waaw ñun xam nga ba ñuy nekk fii nii. Hmm. ñoom ndeysaan xam nga fekkee wuñ kii bi quoi mais mën naa ne ay ah, ah, dara moom kii woon na amoon na boo xam ne mu leen di formé comme genre nekkatul sax. Hmm. même da doon ay voyage wala ñu fi bàyyi. Hmm. xam nga di am lu mu dugal seen bopp. en tant ñun moom su demee am na ñu fi nekk comme coach yu fi nekk yu bari yoo xam ne na nañoo encadré booy xam nga. lépp na maa ngi koy teg si cadre liggéey quoi parce que soo nekkee booy faa ngay déglu ñu lay ñu jiital munoo nekk booy mi nit wax nga tontu ko fukk loolu mu moom du naan doo dem fenn xam nga moom moo tax quoi instant bi di leen wax ñaax xam nga ñu liggéey mooy loolu di jàng xam nga toppatoo di déggal seen waajur xam nga déggal seen coach respecté entraînement mooy loolu loolu rek mooy secret bi mais pas leneen quoi boole c'est leneen parce que football dafa dafa fiir quoi soo tegee leneen rek après loolu da lay day këpp sa oui loolu laa wax gars yi ñu ñaanal ko quoi. dernière question nga lax balaa ñu lay tenir. Hmm. léegi dañ lay wax ne par exemple def nañ première édition jàll na tey deuxième bi vraiment gën na première bi ñu defoon. ñuy préparé troisième édition bi. Hmm. boobu moom dañuy ñaan yàlla sax fekk nga gagné coupe d'Afrique. Hmm. wala nga gagné ballon d'or wala dara. mais troisième édition bi yow nga lax yow yan yan intention nga ci fas yéenee wax ak ban discours nga fas yéenee jàlle pour gars yi ñu préparer bi mun naa ne bii moo dàq sax fekkee ma ko woon demee image bi ma gisoon ak bii nii parce que bii instant bii nii ñëpp yëg nañ ko beneen fekkoon gars yi xamuñu ko yëg noonu ak ñu jàpp. mais ak jour ñu tombeel nii ñëpp yëg ko ñëpp ñëw vraiment paa ñëpp kenn desul quoi gis naa ne kenn desul. xam ñëw nañ def mémorial mu dem ba parce que ñun ñoo mën a fësal kër si mën naa ñëpp xam nañ ko fii mais ñun ñoo ko mën a fësal ba kenn du ko fàtte parce que mënoon na dem du mënu war a a nekk Guédiawaye kase wala fii jamono kase tey waroon nañ a fekk yeneen ASC wala yeneen dëkk ñu ñëw xam ñëpp ñu def ko boo xam ne ñëpp a koy yëg seen bopp amul kii sama coach doon su nekk parce que baatal na fii maanaam liggéey liggéeyal na fii suñu football fii nii fii Guédiawaye Aïdara mun naa ne liggéeyal na Guédiawaye pas jamono kase mais Guédiawaye bi yëpp parce que booy fii ngay dégg Guédiawaye yëpp si loo xam lañ jaar ak ASC bu mu ti dégg si loo loxoom ngay jaar kon ñun moom moom la ñuy sagoo quoi ASC la ñuy sagoo mun leneen loo xam ne moom la ñuy sagoo quoi xam nga di ko ñaanal xam nga yàlla yàlla xaare ko àjjana xam nga ñun moom ñu ngi fii quoi ñu ngi fii di ko teewal chaque jour mooy loolu te duñ ko mos a fàtte quoi waaw pour bu ñuy sori. ok merci beaucoup. nga xamante ni bii euh, moom moo doon capitaine ASC jamono 2 depuis tey mu arrêté carrière am depuis bi ñu jëlee intention def mémorial bi surtout cette lépp moom moo ko dox ginnaaw yàlla tey xale yi nekk fii yëpp doon joxe ordre bi vraiment mu pett ci temps pett ci dooleem depuis ce matin ba léegi mi ngi fi nekk tey suba wàccee nañ kaamil def nañ lépp ngoon gi gala bi nekkaat nii quoi xale yi wër ko doon les les les les les ñu koy waxati les organisateurs yi nekkoon autour de lui léegi ñu doon comme question euh, Mamadou Diagne nan nga Tidiane ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp parce que dafa neex retrouvaille boo xam ni la peut-être bëggeewuñ ko nii parce que bu sañoon sañoon Tidiane dara toog fii mais xam nga bon Dieu a décidé autrement fa am loo xam ni tamit aussi il faut ñu nangu ko suñu borom moom lépp li nga xamante ni moom la soxla rek lay jël mu soxlawul da koy da koy bàyyi bala ñuy dem lenn dañ koy ñaanal comme li ma doon wax tey ci suba rek Tidiane Tidiane ñëpp la ku nekk sa époque daf si marqué dara bu doon benn fan la tamit def nga ko moom ak moom xamal na la jàngal na la teg na la ci yoon bu baax loolu aussi ñun ñu ngi ko koy santé di ko ko gërëmee lépp lu ñu am ci football man moom moo tax yow mii doo ma bàyyi parce que fekkee nga yëlëpp ci au courant de tout ñeneen ñi tamit même chose noonu la demee par génération par génération li si gën a rafet daal mooy lii nii mooy ñëpp ñi nga xam dañoo jaar si loxoom rek tey mobiliser wu créer benn affaire bi nga xamante aussi même bu dul tamit li am solo mooy yëg bi ñaan bi moom fi mu tëdd yàlla xare ko àjjana jabaram ji fu mu nekk soxnaam si ak ay doomam yàlla teral leen ci gi barke lépp li nga xamante ni moom lañ sumb aussi itam mu bàyyi ko fi yàlla na ko yàlla mottali yéen yi nga xamante ni yéen joueurs yi nga xamante yéen la fi bàyyi ñun suñu époque dafa passé dootuñu def dara ci football lu dul waxal taxawal defal dafa am loo xam ni moom daf ñu ko jàngaloon ay capitaine yu bare fi nekk yéen ñi ñëpp ay Daouda Sène ay Ibrahima Koundoul Biram Koundoul Papis Maar Matar Mbow ñëpp képp ku jaar ci loxoom rek am na loo xam ni jàngal na la ko te li la njëkk a jàngal mooy mooy li ma doon wax tey suba mooy éducation bi mooy yar bi te football dañu toll moment bu nga xamante ni ku discipliné wul mënoo coo ci réussir si àdduna sa li mu àndal moo bari dafa ànd ak ay études ànd ak ay bëgg-bëgg ànd ay sacrifice té dafa metti nga nek ci gox bo xamni plus de 100 personnes ñepp ay jour la ñepp bëgg réussir aussi ñun dal li contane nañ torop torop torop torop parce que xam nga comme moy li ma doon wax tay suba rek luma ci wax leneen tamit aussi parce que dama fekkee dal dama fekkee dama jéggi mu tedd nelaw ma jéggi ko dem jëli ballon ñëw entraîner ci li wax ni parce que c'est profond au moins duma ci c'est c'est difficile quoi ngeen balma ma parce que fekke na dal lu bari lo xamni ci néeg la teud ak Mor ma jegi ko jël ballon ñu entraîné ci mu may dénk équipe bi dima ma dénk instant ba tout récemment bis bu muy gañu sax lu bari man ak njaga daf ñuko ko wax lu bari mo tax yu bari mënu ma wax fi ma tolloon ak mom la fi la dëkkoon mo ak sama man ak mom ñoo taxale won même kër xamna ko mu yarma, sama sélection yi moom moo ci doon taxaw samay diplôme yi moom moo ma naan déposé moom moo ma présenté képp ku ma xam ci football comme li gars doon wax nii jàmbaar bu taxawee fii grâce à Aidara moo fi njëkk a nekk recruteur jàmbaar nit ñi xamuñu loolu fekke naa ko Idrissa Gana Gueye Pape Ndiaye Souare ak euh, Soumaré beneen bi ak ñoom Karamboj ñoom ñëpp Aidara moo def recrutement boobu loolu fekke naa ko moo tax nit bu mu sàkk jëf liy dëgg dee ko wax parce que donte ko dundul mais waxal ni ñi dégg parce que ëllëg moo tax ay doomam dañuy màgg jabaram mi ngi dundu sport nag noonu la nit ñi dañuy ingrat mooy dañ lay nëbbal say baax di la waxal say lu bon loolu ngeen mooy moytu ko yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ay jeune ngeen aussi sportif sportif la rek moy communion bi moy li ki magam laa doon andal mm-hmm. ñoo bokon classe bokk lépp ñooy fubalandoo ñoy defando lepp ba tay ño bay ñoy toogandoo yalla def fi liggey ak fi mi liggéey même chose ño den aussi suñu borom li deug rek lay defar motax yalla yàlla na yàlla sutura si yeen ñi fi tew tamit yalla bu len dara ump ci sport yalla na yalla teral da ngeen kontaan tey fii ñu ñëw ñu tey nag bu ñuy ñëwati yàlla na nekk fi nga xamante ni dañuy defar lépp mu taxaw ba nga xam ñëpp dinañ ko yëg ci kàttanu suñu borom yàlla na ko yàlla def doole Muhammad Rasul waaw tey ñu nekk ak kii mooy Papis euh, Papis janko mun naa ne moom mooy porte parole la jeunesse tey euh, mu nekk koo xamante ni vraiment moom it sonn na ci moom ak encadrement am kulim Dioum ñoom Moussa Ba ñoom Lamine Mar Maykor ñom René ñom ñëpp ñom doro kulim jum alak Adriano tout le monde. Mhm. tay mom mu nek sen porte parole euh, Papis ñu la doon laaj tay ban sentiment nga am tay ci memorial bi tay wa mais duñ def lu rafet lu quoi parce que nice na ba pare man waruma won sax jël cadeau parce que sama grand yi wax nañ lepp pratiquement. vraiment suñu coach la lu ñu xam ci football bu dee lu ndaw lu contrôle passe wax dëgg yàlla moom moo ko def si ñun kon ñu ngi ko koy sante même bu fekkee lekkuñu si football dara xaalis ñu ngi ko koy sante parce que ñu ngi joué am nañ si tour xam nga am nañ ci leneen ak leneen ak leneen ñu ngi koy sante suñu borom di ñaan yàlla suuf sedd si kawam fi mu nekk gënal ko fi mu jógee xam nga nages na trop gars yi ñëw nañ xam nga quartier bi ñëpp génn nañ macha allah xam nga di ñaan yàlla mu gën a yaatu xam nga ba borom boro les bonnes volontés gars yi dugal si seen loxo bu baax a baax parce que nit ki moo toll noonu nit ki moo toll noonu quoi te dañ koo ji tamit ñun dañoo am devoir mooy lan mooy ñu fay ko ko man li ma gën a metti sama dunia mooy lan mooy li mu sama njëriñ xam nga ma liggéey ba mu fekkee loo xamante ni carrément maa ko moomal sama bopp ma defal ko xam nga parce que dafa nekkul loo xamante ni dafa nekk sama mbëbët mais bon nit ki moom dangay ngay xam li nga bëgg rek après suñu yaa suñu borom moom mooy dogal xam nga mais comme demee na nii moom ñu ngi koy sante yàlla xam nga di ko ñaanal bu baax a baax baax comme fi mu ne nii moom ñaan la gën a soxla lii ñuy def yëpp mbirum àdduna la xam nga mais par le biais de ça la ñuy jaaree pour ñu def loo xamante ni carrément ñun loolu lañ ko bëggal xam loolu moo fi des famille bu fi nekk ñu jéem a def le tout ba xam nga suñuy soutien di dem si ñoom à chaque fois même bu dul doolay poos mais ñuy dem di leen nemmeeku di leen seeti xam nga ñi xam ne carrément ni gars yi yëg nañ leen quoi parce suñu coach moo jar loolu noonu vraiment ñun bu ñuy wax si moom sax suñu xel day dem feneen xam nga mënuñu wax si moom duñ def lu dul ñaanal ko rek xam nga di leen sant di leen gërëm yéen tamit parce que li ngeen def nice na trop waa Guédiawaye Infos xam nga parce que tamit euh, c'est pas évident xam nga ngeen nekk fii ba benn heure bi xam nga di euh, couvrir di di couvrir euh, événement bi xam nga dañ leen ñaanal li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal xam defal ñu jàmm jàmm ju bëri xam nga def jàmm si dëkk bi ko quoi loolu lañ gën a soxla. tey question ñu leen wax par exemple euh, def nañ première édition bi tey mu nekk deuxième édition. Mhm. jàpp nañ ni moo dàq première édition bi léegi yan moo ngeen préparé pour troisième édition bi incha allah. waaw bon gars loolu la ñuy wax parce que daaw bañ koy def c'était bref xam nga daa amoon ko taxoon ñu def ko. comme kooku ren nekku fi information bi gën na jàll mais déwén dañuy ñaan carrément ni ay ay ay say yu nekk suñuy voisin la ñuy suñuy voisine la ñuy invité xam nga ñoom ñu ñëw fekkee bés bi parce que tamit ay dara du ay dara jamono kase foog loolu nit ñi xam ko ay dara ay dara la ay dara Sénégal ay dara ñëpp la see international xam nga parce que jàmbaar bon Sayer Seck moo digganteem Sayer seek ñëpp xam nañ ko diggante moo waa Espoir ñoom Diop Diagne ñëpp xam nañ ko du coup bu ñuy def beneen yoon dañuy bëgg mu yaatu xam nga yenn ay say yëg ko engouement bi gën a am mais la prochaine fois incha allah dañuy ñaan yàlla defee ko stade Amadou Barry wala bu fekkee njaareem tijji na ñu defee ko foofu noonu mu gën a yaatu gars yi gën a ñëw xam nga message bi gën a jàll quoi. loolu moo nekkoon suñu suñu mbëbët pour euh, la prochaine fois incha allah. comme ngeen ko gisee ñuy nuyu ñëpp di gërëm ñëpp mbokk internautes yi euh, surtout ma diaspora bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, di remercier infiniment Guédiawaye Info ñu ngi woon tey ci mémorial bi fa Tidiane Ahmed Tidiane dara ay Aidara mu nekk koo xamante ni bii doo nekkatul rek Aidara jamono 2 nekkatul Aidara géejawaay nekkatul ay Aidara Dakar nekkatul Aidara Sénégal Aidara international la gis nañ jaamu yàlla yëpp niñ ciy participer seen loxo vraiment kontaan nañ l'année dernière moo doon première édition bi tey moo nekk deuxième édition bi ñii ñaan yàlla troisième édition bi déwén yàlla bu kenn manqué yàlla nañ ko def ci jàmm incha allah ah, balaa ñuy def dara luñ def lu ñi nga xamante ni bii jàppale nañ ñu lool pour la réussite de cet waaw di di remercier encadreur yi nekk géejawaay yëpp la leen wax ku ci nekk yëg nañ sa participation li nga def ci équipe bi yëg nañ sa doole yëg nañ sa xel yëg nañ sa xalaat yëg nañ sa poste aussi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm waa Cheikh Wade aussi ñuy di ñuy wax mention spéciale ñoom ñëpp gis nañ lañ ci daj tey vétéran yi ñoo yënd ak ñun ce matin wàccee kaamil bi bi ñu ñu def tournoi entre école football demi finale final, ñu dem noppalu ngoon gi ñu dikkaat defaat match de gala entre anciens joueurs de et les vétérans de Jamono 2 mu nekk tey journée boo xamante ne bii ce une journée inoubliable kenn du ko fàttee tey ci àdduna di remercier école football yi nga xamante ne bii jugee nañu hors de Guédiawaye bu ci mel ni école football bu jugee Kër Mbay Fall te Babacar yor ko ñu naan ko Kiri Géej bi nga xamante ne bii pur euh, pur jour de Aïdara la woon vraiment ay dara moo ko jàngal football dugal ko ci métier entraîneur mu dem tey ba yor diplôme am yor centre de formation fële ca Mbay Babacar ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal ñëpp du ñu fàtte aussi waa Espoir de Guédiawaye ku ne Espoir de Guédiawaye da ngay teg lépp ci loxo Diop Diagne Diop Diagne tey fii lay yendu ak ñun ñëw def fi teraanga boo xamante ne bii teraanga bu mucc ayib la Diop Diagne ñu ngi lay sant di la gërëm di sant waa Espoir de Guédiawaye yëpp ñoom Omar Diop ñoom Jibi ñoom ñoom ñoom Capello ñoom Boy Sène Espoir de Guédiawaye bi yëpp ñoom coach su bàcc bàyyiwuñ kenn sant nañ gërëm nañ ñëpp sant nañ tamit waa CONEF CONEF coordination nationale des écoles de football du Sénégal gis nañ seen i ñaan gis nañ seen jàppale du ñu fàtte mukk tamit waa def de Guédiawaye moom mooy coordination départementale des écoles de football du Sénégal ko def par le biais de euh, Jean Gueye président ak Amadou gay président ñoom Palmer ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Malick Diouf coach yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ñoom ñëpp gis nañ ni ngeen jàppee pour surtout événement bi vraiment di kontaan ci ñëpp di jaajëfal aussi sama rakk yi nga xamante ne bii ñoo nekkoon ci ginnaaw lu leen di woowee les hommes de l'ombre di par le biais de Papis Dianko kon nuñ ko présenté sànq moom mooy seen porte parole gis nañ nu mu jàppee ci bis bi Modou jaañ moom mooy suñu grand ku wax Modou jaañ wax nga Ibou Diop wax nga Lamine Ndiaye wax nga grand Amath wax nga ñëpp lim ñëpp di wax tamit ancien joueurs yi nga xamante ne bi am nañ temps ko tey ku leen représenté fii mi grand Mandaw Sarr mi nga xamante ne bi amul lu mu deful ci as jamono jii bi comme li olof di wax rek ku def lu rëy rek di nga am lu rëy te yàlla xol lay fay ay dara bisam bii mooy wane dara ku baax la woon Aidara ku liggéey ci ASC e bi la tey bu demee ba forme quatre génération loolu sant yàlla kuñ ne forme na les les joueurs yoo xamante ni bi la première génération la génération de 70 ñu jóge fa ne la génération de 80 jóge fa la génération de 90 ñëwaat ne la génération de 2000 quatre génération boo leen formé rek pour muñ pour ñun mucc na ayib li ñuy jooy mooy xanaa gàtt fan bi ñi ñaan yàlla fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jugee yàlla na rëcc lu mu doon ñëwee ci àdduna ñi mu fi bàyyi aussi yàlla na yàlla dimbali bañ mottali projet bi suñu waxé loolu ki mom moom moom mooy Ba mi nga xamanteni bi mo encadrer école football bi ko dara denk affaire yi metti na deuguer na mais ñukoy encourager di faire appel à tous les joueurs yi nga xamanteni bi jaar nañ ci ay dara ñu ñew jappalé école football dara bi ñukoy wax école football de jamono 2 école football la bo xamanteni bi njaga mi ngi ci nek limuy dund lu neex mo dafa touti lol par rapport ak limuy dund lu naqari dana soxla ay matériel dina soxla ay moyens dina soxla lepp ñi wax képp ki nga xamanteni bi jotna annonce bi nga ñew jappalé njaga Ba vraiment daal ñu ngi woo ñëpp di wax nëpp nañ ñëw jàpp si xeebuñu dara lu waaye def ci école football bi rek jàppal ne Aidara moo la ko lebaloon te loolu nga ko fay.